gannaaw ba ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ñu ngi leen di nuyu lislaam di leen ziyaare di fas gi dikkaat ak yéen ci émission bi ñu faral di def ci waxtu wi de ak ci bés bi de muy makaarimul axlaaq ah, ñu bëgg a fàttalante mbir mu am solo boo xam ne jullit bu nekk war na cee bàyyi xel ndax borom bi subhaanahu wa taala dafa waxan ci alquraanul karim ni inna xalaqna al insaana min nutfatin amshaajin nabtalihi fa jacalnaahu samian basira ñun de yàlla ñoo bind nit ci aw toq ndox wu jaxasoo ak geneen nee na nag ñu koy jaarale ci ay étape mu jóge ca dem ci yeneen étape ba doon nit bu mat sëkk yàlla nee na ñu génne ko ngir natt ko wante nag fa jaalnaahu am basira ñu def ko nit muy dégg nit kuy dégg cay noppam ya di gis ca gëtam ya kon yàlla tudd na fa ñaar yu am solo yoo xam ni nee na bokk na ci mbinde mbindam yu gën màgg yu mu defal doomu aadama muy dégg ak gis bokk na tamit ci xéwalu yàlla yi gën a màgg loolu tax yàlla tudd na leen ci alxuraan boole leen muy dégg ak gis lu toll ni dix-neuf muy fukki yoon ak juróom-ñeent fukki yoon yeeg juróom-ñeent yépp ma nga ca jiital dégg ca gis ba mu des ñaari bërëb kon muy fukki yoon yaag juróom-ñaar yépp dégg la ca jiital kon loolu muy wane mooy rëyaayu xéwalu dégg ak responsabilité bu rëy ba ca ne dana tax yàlla subhaanahu wa taala wax ni ñaar yooyu dénkaane la te yàlla dana ko laaj képp ku ne ñun inna samaa wa basara wal fuaada kullu ulaayika kaana anhu masula dana leen laaj seen dégg yi muy seen nopp yi la nga leen seen déglu ci àdduna ak tamit seen gis ya la nga leen ca xool ci àdduna def na leen ko laaj seen xol ya la ngeen la ngeen la ngeen pasoon def na leen ko laaj ëllëg yowmal qiyaama laanatullahi aley bi nga xam ni noonu doomu aadama la te noonal googu def ko piraloon ci suñu maam aadama wax ni tamit noonoo googu ah danañu dana ko dund ak ñun xam xamal ñu ko nag fa tax iblis waxoon ci jëkk ni qaala fa bima agwaytani la aqudanna lahum siraataka almustaqim summa la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymaanihim wa an chamaa'ilihim wala tajidu aktharahum shaakiriin mu ni yàlla de yow yàlla ci sababu bewloo gi ma bewloo ci yoon wi nga xam ni mooy wu jub wa muy siraatul mustaqim bu ko defee ku ñëw rek ma wàcce loo ko yoon bi doomu aadama yi nag dinaa leen dikke lu ne ak fu ne ngir loo leen yoon bi naa leen dikke seen kanam seen ginnaaw seen ndeyjoor ak seen càmmoñ te bu yowmal xiyaamee yow yàlla ñu bari ñu ëpp ci nit ñi doo leen fekk ñu doon ñu la gëm ak ñu lay sant kon seytaane musta dañ ci pexe moome bokk na tamit ci pexe seytaane yi nga xam ni fexeel na ko doomu aadama yu bari ci jamono ji ñu dund mooy xéwal woowu yàlla jox leen muy xéwalu dégg seytaane fitnaal ca doomu aadama ya fitna goo xam ni eh, laal na képp koo xam ni ak xam-xamu lislaamam manqué na wala diine manqué wala xelam manqué iblis jaare ca fitnaal leen ci ci seen wàllu dégg ak la ñuy dégg fitna wu rëy la leen ci fitnaal doomu aadama yu bëri ci jamono ci fitna woo xam ni tasaaroo na ci télé yi télévision yi tasaaroo na ci rajo yi tasaaroo na ci portable yi sax tasaaroo na ci kaset yi ci CD yi ci clé USB yi sax tasaaroo na ca ci fépp fu nit di nekk sax fitna woowu tasaaroo na fa muy fitna yi jig ci oto yi moo xam transport commun yi la moo xam tamit taxi yi la moo xam tamit cérémonie yi nit ñi di daje sax moo xam ya nga xam ni moo cay tudd wala ya nga xam ni céetal la wala ya nga xam ni sax takk la yooyu yëpp fitna woowu tasaaroo na ca kon fitna jooju fitna ju rëy la fitnaal na àdduna fitnaal na doomu aadama yi fitnaal na jullit yi fitnaal na jeunesse bi rawatina ak jigéen ñi fitna jooju mooy den fitna yi nga xam ni ci la iblis iblis di jaare di yàqe xol yi ak diine yi ak jikko yi ak alal yi ak énergie yi ci la leen yàqi fitna jooju mooy fit genn fitna mooy fitnay musique fitna ju rëy la ànd ak ni moom bokk na ci gën a màgg ci yàlla xaraamal loola tax yàlla xaraamal ko ci alquran xaraamal na ko ci sunna yonent bi làmmiñu saxaaba yi tamit dëppoo na ci loolu borom xam-xam yi tamit xeet wi yépp dëppoo nañ ci loole alquran fan la ko fan la xaraamale musique borom bi subhaanahu wa taala mi ngi wax ci alquraanu karim nii wa min annaasi man yashtari lahwa alxadiisi li yudilla an sabilillahi bi gayri ilmin wa yattaxidaha huzuwan ulaika lahum azaabun muhin ulaayika lahum adaabun muhiin wa ida tutla alayhi ayaatuna walla mustakbiran ka an lam yasmacaha ka anna fi udunayhi waqra fa bashirhu bi adaabin aliim suratu luqmaan aaya six ba sept borom ba ma ngi cay wax ni wa min annaasi am na ci nit ñi man yashtari lahwa alxadiisi koo xam ni dafay jëndee waxi caaxaan yii këf xel ak xol waxu caaxaan juy këf xel ak xol ndax lëhu mooy wax joo xam ni ak caaxaan joo xam ni dafay këf xelu doomu aadama ak tamit xolam ba pàbbiloo ko tudd yàlla ak fàttaliku yàlla yàlla ni am na ci nit ñi ñoo xam ni dañoo jël waxu caaxaan juy këf xel ak xol te mooy musique ngir sànq ca nit ña ci seen diine te loolu yépp ko koy def dafay sori xam-xamu lislaam doo ko du fekk doo ko fekk mukk mu xam dara ci lislaam yàlla ni wa yattaxidaha huzuwan foo ko fekk ma ngay pooye diine lislaam di ko saboote ak ñette ne yàlla ni ulaayika lahum adaabum muhin ñooñu de am nañu bu yowmal qiyaam yi mbugal mu leen i toroxal wu leen i xaar wa ida tutla alayhi ayatuna saa boo xam ni jàng nañu alxuraan walla mu wane ginnaaw du ña koy jàng du mooyu alxuraan wa bërëb yañ koy jànge du fa du ko fekke mustakbiran ànd ak rëy déglu alxuraan ak rëy fekke jotaay ba ñuy jànge alxuraan ak di ko firi ka an lam yasmaaha dafay dund ci àdduna mu mel ni ko tëx ci alxuraan déggul alxuraan ka anna fi udnayhi waqra dafay mel ni noppam daf nee na kooku de fa bashiru bi azabin alim kooku ko bégalee ak mbugal mu metti bi ci yéeféeri la wàccoon mais xam ni jël na waxu yooyu jëndee ko alxuraan am nga kon mooy ku jël waxi caaxaan yuy fàbbi xol yu fàbbi xel jëndee ko alxuraan weccoo ko ak alxuraan kooke ci boppam am na ca cër loo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam le ni aay yi mi ngi wàcce ci ñiy jël musique yi di ko jëndee alxuraan loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ni laa tabicu alqaynaati wala tashtaruhunna wala tucallimuhunna wala xayra fi tijaratin fiihinna wa thamanuhunna xaraam wa fi misli hada unzilat hadihi al aaya wa min annaasi man yashari lahwa alxadiis li yudilla an sabilillah ila axiri alaya rawahu tirmidi wa xasanahu albani fi saxiixi tirmidi yonent bi ñu wax ni bu leen jaay jaam yi jigéen yiy way ndax bu njëkk jaam yi jigéen yi ñooy way góor daawul way mu ni bu leen leen jaay ndax dañuy fitnaal ña ngeen leen di jaay ñaareel ba mu ni bu leen leen jënd tamit muy jaam yi jigéen yi nga xam ni ay waykat lañu ndax jaam yi jigéen yi ñoo doon way ci jamono jooju wala tuallimuhunna bu leen leen xamal tamit way bu leen leen ko jàngal mooy jaam ya ko mënul wala xayra fi tijaaratin fihinna nee na yiw ak mbaax nekkul ci jaay leen wala jënd ak ak njaay wu aju ci ñoom wa samanahunna xaraam seen njëg araam mu ni nag aaya bii ma jàng sànq muy wa min annaasi man yashtari lahwa alxadiisi li yudilla an sabilillah nit ñi am na ñuy wecce waxi caaxaan wecce koog alxuraan nee na ci ñu mel nii la laaya ba wàcc loola tax saxaaba yi musuñoo am xel ñaar ni musique bokk na ci lahwul xadiis moy waxi caaxaan yi këf xel abdullah ibn abbas radiallahu anhuma xam ni bokkoon na ci firikatu alxuraan yu mag ya yonent bi ñaanal ko ko mu ni nazalat fil ghinaai wa ashbaahi mu ni laaya bi dafa wàcc ci musique ak yu mel moom ci ay kàddu ak ci ay wax loolu Buxaari génn na ko ci al adabul mufrad noonu tamit wér na ci Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu bi mu jàngee ay bi ñu laaj ko ko lu muy tekki lahwul xadiis mu ni huwa huwa alginaahu walladi laa illa huwa daal di koy wax ñetti yoon mu ni giñ naa ci yàlla mi nga xam ni amul kenn ku yeyoo jaamu ci dëgg ku dul moom lahwal xadiis mooy waxi caaxaan yi këf xol ak xel nee na mooy musique noonu tamit abdullah ibni omar radiallahu anhuma nee na tamit lahwal xadiis mooy boo demee seen ndongo yi tamit ñoom loolu lañ ko firee ku mel ni Ikrima nee mooy musique ku mel i Xasanu Basri nee na tamit aaya bi bokk na ci li tax mu wàcci mooy musique ak lu nu mel kooku Xasanu Basri rahimahullah wax na ko loolu tax alwaaxid yi wax ni ci firikatu alquran la bokkoon bokkoon tamit ci borom xam-xam lakk arab yi mu ni aktarul mufassirina ala anna al muraada bi lahwi al xadiisi al ginaa ñi ëpp ci firikati alquran yi dëppoo nañ ni lahwi al xadiis gi yàlla wax ci alquran muy waxu caaxaan gi këf xel ak xol nee na la ca yàlla la ca yàlla jublu mooy musique loolu tax ibnu qayim rahimahullah wax ni wa yakfi tafsiru saxaabati wa taabiina li lahwi al xadiis bi annahu al ginaa fa hum aclamu al ummati bi muraadillahi azza wa jalla fi kitaabihi fa alayhim nazala wa hum awwalu man xuutiba bihi min al umma fala yucdalu ah, wax ni boroom la woon mu ni firi gi saxaaba yi firee laaya wi lahwul xadiis ak ña tegu ci ñoom di taabiine yi ni lahwul xadiis de caaxaan loole de mooy musique nee de prix moomu doy na ndax ñoom saxaaba ya ak ña tegu ci ñoom ñoo gën a xam ci xeet wi la yàlla nam ci téeram bi ndax alxuraan ba muy wàcc ñooma ñoo fekke woon ñoom la alxuraan njëkk a waxal ci xeet wi te wax ca dolli tamit ñoom ay arab lañ ñu set wicc raxuñu dara kon xam nañu laayeen la tax mu wàcc ak fa mu wàcc ak lañ ci jublu loo tax mu ni fala yudalu an tafsirihim loo tax seeni pirin ñoom saxaaba ya kenn du ko jéggi wàcc ko di seeti leneen loolu tax aaya bi kon wane ne ni nit ci boppam saa bu jële musique yitte woo ko rek wéccoo na ko ak alquran loo tax ibnu qayim rahimahullah wax ni innaka la tajidu ahadan uniya bilginaa'i wa samaa'i aalaatihi illaa wa fiihi dalaalun an tariiqi alhudaa ilman wa amalan wa fiihi ragbatun an istimaa'i alqur'aani ila istimaa'i alginaa ibnu Qayyim rahimahullah ni doo gis mukk kenn ku yittewoo musique ak déglu ko lu dul ni da nga fekk ci moom ak ndëngte wala ak geng ci wàllu xam-xam ak ci wàllu jëf da nga fekk ci moom tamit benn mbañeel goo xam ni wala ñàkk xër ci alxuraan mu nekk ci moom ak xër ci musique boo xam ni xër ci musique ma mooy remplacer xër gëm waroon a xër ci alxuraanu karim loolu tax mu wax ni fa innahu ruqyatu zina mu ne musique ci boppam mooy mocci jaaloo moo koy jat ngir mu dikk loolu dangay gis ni tubaab yi sax seen image yu bon yi aju ci loolu dañ koy booleeg ak musique ndax moo koy suuxat mooy garab mooy ndox mi suuxat njaaloo moo koy moo koy mocc noonu tamit moom ci boppam moo koy jag wa sharaku cheytaan nee na mooy mbaal wi cheytaane di mbaalee wa xamratu uquuli mooy sàngaray xel yi ak bakkan yi ak tamit ruu yi moom musique wa yasuddu an alqurani akthara min gayrihi min alkalaami albaatili nee na li muy dox diggante nit ki ak alxuraan ak bëgg alxuraan ak di bànneexu ci alxuraan moo ëpp lu leneen di dox diggante nit ki ak bànneexoo alxuraan ak déglu alxuraan ki la dàq déglu musique dàq laa bànneexoo ci musique kooke moo la gën a néew li muy déglu alxuraan moo la gën a néew lu muy bànneexoo ci alxuraan li siddati may li nufuusi ilayhi wa ragbatiha fiihi ndax bakkan yi dañ ko bëgg loolu tax mu sadd ay way nii حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان والله ما سلم الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن وإذا تعلق بالسماء أصاره عبدا لكل فلانة وفلانه nee na xubbul quraani wa xubbu alxaani alxina fi qalbi abdin laysa yajtamiaani nee na bëgg alxuraan ak bëgg musique duñ daje ci xolu benn jaam ndax alxuraan mooy waxu yàlla di alxuraanu yàlla di alxuraanu jullit ñi amma musique mooy alxuraanu iblis loo tax mu ni wallahi ma salima alladi huwa daabuhu abadan min al israaki bi rahmaani nee ku dëkk ci déglu musique ak di ko bànneexoo nee na doo mucc mukk di bokkaale yàlla ak leneen wala ak keneen wa ida taallaqa bi samaai asaarahu ak abdan li kulli fulaanatin wa fulaani nee na ku dëkk nag di ko déglu moom musique da nga mujj musique def loola jaam boo xam ni dangay ngay jaamu musiciens yi moo xam bu góor ba wala bu jigéen ña ñoom ngay jaam boo leen gisee rek dootoo ànd ak sa sago dañ lay jaral lépp jaral la sa alal ñàkk nga ñàkk ko sa temps sa énergie say noflaay say nelaw lépp sax dañ la koy jaral bu ko defee nga doon seen jaam loolu tax mu teg ca ni fal ghinaa'u yaf'alu bi qulubi wa nufuusi fi ilal xumuri nee na sàngara ni muy def jëmm yi ak xel yi nu ko raw noonu la musique ci boppam di def xol yi ak tamit bakkan yi noonu la koy yàqee loolu tax boo gisee te koy déglu dangay gis bu ko tàmbalee di déglu nit ki mu commencé di wax làmmiñ bi tàmbale di aw loxo ya loxo ya tàmbale di aw moo xam dafay tàccu wala di tettesu nga commencé bopp ba di ko yëngal commencé di yëngal loxo ya commencé di yëngal tànk ya yaram ba tàmbale di yëngatu muy jaayu walla mu tàmbale di tëb ak a waaye ak ak ak ak wëndeelu bu ko defee ci lay nekk ay waxtu waxtu du yëg benn yokkat ak tamit lenn lu ko sàppi ci loole loolu yëpp di ko bànneexoo loolu yëpp dafay wane ni sàngara la loo tax nit ci boppam bu koy déglu ni ki màndi di def nu ko raw noonu lay def loo tax borom bi wax ni wa ida zukira allahu waxdahu shma'azzat qulubu alladina la yuminuuna bil axira wa ida zukira alladina min duni ida hum yastabshiruun saa bu ñu tuddee yàlla rek nee na xolu ñi nga xam ni gëmuñu àllaaxira commencé di ñëgg commencé di tàng commencé di bon commencé di laaj commencé di xul seen xol yi commencé di xultu nee nag wa ida dukira alladina min duni ida hum bu ñu tuddee ñeneen nag ñu dul yàlla ah nee na ñeneen ñu dul yàlla bu ko defee ñu commencé am mbégte am commencé fiix commencé firéeku commencé kontaan loolu yëpp dafay wane ni ah, alquran ci boppam moom tere na bokk na ci njëkk a wane ni musique dafay dox diggante nit ak alquran ni ak caaxaan la wax yu caaxaan la wax yu këpp xol la ak xel loolu tamit alquran tuddaan na ko feneen fi yàlla di wax ni subhaanahu wa taala afa min hada alxaditi taajabuun fa tadxakuuna wala tabkuun wa antum saamiduun borom bi ni afa min hada alxaditi taajabuun moo ndax alquran wii moo leen yéem wa tadxakuuna wala tabkuun moo tax ngeen reetaan te doo leen jooy wa antum saamiduun ngeen boole ci di fecc ak a way ak a sarxolle ak a musique loolu ci boppam borom bi bi ngi doon ko wax yéeféer ya nga xam ni alxuraan mosaan wàcci ñoom ci boppam dañuy bañ yonent bi yëkkati ko ci kaw ñeneen yi di ko dégg bu ko defee nag dañ laan seen mbokk ya ñeneen ña ni leen laa tasma'u li hada alqurani walgaw fihi laallakum taxlibuun bu leen déglu alxuraan jamono ji yonent bi di na ma jàng rek na ngeen sarxolle na ngeen yooxu na ngeen tàccu na ngeen fecci bu ko defee loolu muur alxuraanam bi bu ko defee ngeen noot ko moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba waxam di jàll bu ko defee saami duuna googu mooy ay way léeg-léeg yu ànd ak ay neexali baat ak i tëgg ak tàccu ak i tettesu loolu ci boppam mooy saamidun noonu la ko saxaaba yi firee ak borom xam-xamu làkk arab abbas radiallahu anhuma ni ak sumuudu al nee na saamiduuna sumuud googu moom mooy ak way kon wantu saamiduuna fekk ni yéen ngi way seeni nekk ci seeni musique ngir saddee ci alxuraan ngir tamit bañ déglu alxuraan loolu abu ubayda noonu la ko firee ak ikrima wax ni wa kaanu ida samiu alqurana tagannaw fa nazalat hadi l aaya yéeféri màkk yi saa bu ñu musaan a déglu alquran dañuy tàmbale di way ak a tëb ak a sarxolle bu ko defee ngir muuru alquran loola tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam amoon na kenn ci yéeféer ku ñuy wax abdul uzza ibnu xatal abdul uzza bi yonent bi tàmbalee di woote di tàmbale di biral alxuraan di ko jàng ca màkka ak ca kaaba ga moom dafa jëndi ñaari jaam yu jigéen yoo xam ne dañuy way ndax bu njëkk jaam yeen ñooy way góor daawul way léegi la ñëpp di way léegi nag windi ñaari jaam yooyu ni danaa fexe ñaari jaam yi seeni way dana muur alxuraanu muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu la waxoon bu ko defee yonent bu dikkee rek tàmbale di jàng mu digal ñaari jaam ya ñu tàmbale di way gaa yi tàmbale di tëgg ngir muur alxuraan yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa la nekkee woon ak yonent bi ci màkka bi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi delloo Medine ba am doole taxawal état islamique ba wëlbatiku ngir dem màkk ngir ibbi màkka ngir def ko muy état islamique ci jamono jooju nag ca la yonent bi sallallahu wa sallam wax ni waa jooja ni di Abdul Uzza fu mën a nekk fekk leen ko mun loo leen ko mun di fekk wala lu mën a di def neen ko rey bu leen ko baal ñaari jaamam ya tamit ni nga leen rey bu leen leen baal doonte sax dañu leen fekk ñu laxasu ci làmbaayu taaba gi na nga leen rey te ba te te at moomu ci wa te te te ubbi te màkk googu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn mu xeex te leen tere woon ñoom saxaaba yi bu ñu xeex bu ñu rey kenn ñu ànd loolu digle ne ñu rey gaa yi waa ji ak tamit ñaari jaam yi jigéen yi nga xam ni daanañ ko woyal ngir muur alxuraanu yonent bi ak nëbb ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu tax bi ñu ibbee màkka tamit fekk ko ca kaaba ga mu laxasaayu ci làmbaayu kaaba ga dañ koo fekk foofu rey ko ak kenn ca jaama yu jigéen yi nga xam ni ñoo leen way loolu yëpp dafay wane ñi musique mu musee doon benn kàddu seytaane goo xam ni ci lay jéemee muuree ko alxuraanu yàlla ci loolu ci jamono njëkk ya ba ci jamono ji mujj ci noonu tamit dafay wane ni ni alxuraan jaajee misikkat yi ak ña koy déglu ak ni mu ko teree ak ni mu ko bonalee ak ni mu ko yéesalee noonu tamit bokk na ci alxuraan fi mu ko tuddee nga xam ni alxuraan buy tuddle dara lu tudd turam wante day tudd melokaanam bu ko defee mbooleem xeet yi nga xam ni dafay niroog moom dafay bokk melokaan da cay dugg ba aaxiru zamaan bu ko defee alxuraan day jiitu jamono day jiitu jamono loo tax borom bi wax ni walladina la yashhaduuna zuura wa ida marru billaghwi marru kirama suratu furqaan aya 72 borom bi wax ni subhaanahu wa taala bokk na sama jaam yu sell yi baax yi ma gërëm mooy ñi nga xam ni laa yashhaduna zuura du ñu tekkee zuur muy ay caaxaan duñ ca teew wa ida marru bi lagwi saa bu ñu rombee ay waxi caaxaan te tey ñu ko marru kiraaman dañuy romb gaawantu jommale seen bopp taxaw foofe wala di yërnu wala di xool wala di déglu dañuy romb romb nit ñu tedd ñu am fulla ñoo ne tamit ñu jomma déglu loole kon dañuy jommale seen bopp bërëb yooyu loo tax zuur fii daaw ñu fekke zuur daaw ñu ca teew zuur ki ko firi mooy muhammad ibnul xanafiya mooy doomu ali ibnu abi talib bi nga xam ni ali mi ngi ko tuddee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy muhammad ibnu ali ibnu abi talib ndeyam moom moonoon alxanafiya dañ ko askanee ci ndeyam fatima juru ko mais doomu ali la radiallahu anhu ali moom la tuddee yonent bi muhammad moom ci taabiina yi mag yi la bokkoon moom moo firi euh, ci taabiin yi la bokkoon moo firi zuur fii nee na zuur ha huna al ghina nee na zuur fii li muy tekki mooy musique moom doomu Ali boobu tuddoon Muhammad xam ne Ali mi ngi ko tuddee woon euh, Muhammad yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mujahid noonu tamit noonu la ko firee nee na walladina laa yashhaduuna zuura ay laa yasmacuuna al ghina ñi nga xam ne duñu fekkee zuur mujaahid mi ngi ko firee yi ñi nga xam ne duñu déglu musique noonu la ko firee kon yàlla tagg na jaamam yi nga xam ni duñu déglu musique moom borom bi subhaanahu wa taala kon xas na ñi nga xam ni ñoo koy déglu wax leen tamit wa ida maru bil lawi maru kirama qurtubi rahimahullah nee na wa ida maru bil baatili fa samicuuhu aw ra'awhu maru kiraaman muruuruhum kiraaman fi baadi dalika bi an la yasmacuuhu wa dalika ka zina al imam tabari dokkoon dokkoon firi kas alquran mag maru bil bil laghwi maru kiraaman lu muy tedd ñooñe rombee caaxaan ya fa sami'uhu romb rek dégg ko wante déglu ko de dégg dafa am ak déglu aw rawaahu wala ñu gis ko fa ñu romb maru kiraaman dañuy romb romb gu gaaw romb goo xam ni gomb euh, gu ñuy jommale seen bopp caaxaan yooyu la loo tax mu ni mururuhum kiraaman fi baadi dalika bi an laa wa dalika kal ina seen romb googu romb gu ànd ak teral seen bopp mooy ñu bañ koo déglu bañ faa taxaw ak bañ caa dem nee lu mel no caaxaan ya nee na bokk na ci caaxaan ya lu mel ni ay musique kon loolu dafay joxe exemple kon loolu dafay wane ni borom bi subhaanahu wa nee na bokk na sama jaam yi baax yi du ñu fekke fa ñuy musique noonu tamit bu ñu ko rombee duñ fa jaar duñ fa taxaw noonu tamit ah, duñ fa ah, duñ fa duñ fa jàdd kon loolu gërëm na ca moom borom bi subhaanahu wa taala nga xam ne ñooy jaamam yu baax ya tagg na leen ca beneen aaya bi mooy waxu yàlla subhaanahu wa taala mu wax ni wa qul jaa alxaqu wa zahaqa albaatilu inna albaatila kaana zahuqa waxal yow yonent bi ci korog fatxu màkka dëgg dikk na caaxaan alku na caaxaan ak neen euh, wéy na randu na alku na jeex na inna albaatila kaana zahuqan caaxaan musta dañ ci randu ci bu dëgg dikkee ak tamit ji neenu dafa amoon benn waay bu ñëw ci Ibn Abbas rahmatullah eh, radiallahu anhuma ni ko maa taqulu fi lgina a xalaalun huwa aw am xaraam loo xam ci musique mais ñoom musique bii ñu doon wax nii moom ibnu abbas bi ko waaji laaj moo lan wayu arab yi nga xam ni wayu kaw-kaw arab yi nga xam ne dayaan ko neexal moom la ko laaj ni ko loo ca xam ndax dafa xaraam wala dafa dagan bokkul ak yu ànd ak instrument yi ndax loolu borom xam-xam yépp instrument musical yi yi ci ànd borom xam-xam yépp dëppoo nañ ci loolu dafa xaraam fa qaala lahu ibnu abbas ibnu abbas ni ko araayta alxaqa walbatila ida jaa yowma jaa yowma alqiyaama fa ayna yakunu ginaa ni ko waa léegi laaj bu yowma qiyaam jotee yàlla ni dëgg kaay jikkal taxaweel ne mu taxawee ndeyjoor mu ni caaxaan kaay taxawal mu taxawee càmmoñ mu ni ko boobaa yàlla bu waxee ni ya xeetoo ci dëgg nañ dem taxaw ànd ak dëgg ya xeetoo ci caaxaan nañ dem taxaw ànd ak caaxaan nee na mu laaj ko ni waaw boobaa way ci boppam ak musique woowu ci boppam dëgg lay fekki wala caaxaan lay fekki mu ne ko ah xanaa caaxaan ibnu abbas ni ko idhab faqad aftayta nafsaka demal tontu nga sa bopp kon loolu yëpp dafay wane ni ñoom mos ñoo am sikki fàkk ni ah, way yooyu nga xam ni kaw kaw arab ya moom la yaan neexal ah, nga xam ni danaan ànd ak ah, lenn ci ay sewal baat yoo xam ni day jéggi dayoo loolu bu demee ba Ibn Abbas tuddee ko baatil waxuma la nag way yi nga xam ni yemu ëmb ci ay maanaam dafa xaraam benn ñaareel ba ñu boole ko ay instrument musical yoo xam ni boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ni dafa xaraam booba ñetteel ba mu boole jigéen di ko way ah kooke dafay gën a xaraamati ndax yooyu yëpp dafay gën a yokk mbir mi ak ak xaraam beneen aaya ba muy juróomeelu aaya bi borom bi subhaanahu wa taala wax ci alquran nii wastafziz man istataata minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi xayrika wa rajlika wa shaarikhum fi l amwaali wal awlaadi wa idhum wa maa yaciduhum alcheytaanu illa gururaa borom bi subhaanahu wa taala wax na cheytaane ni ko wastafziz man istataata wastafziz ni ko na nga xëcci yow cheytaane xëccil yow cheytaane man istataata koo mën a xëcc minhum ci doomu aadama yi wastafziz na nga tarxisloo man istataata koo mën a tarxisloo ci doomu aadama yi na nga leen xëcci ñoom doomu aadama yi koo mën a xëcci ci ñoom di sawtika ci sa kàddu yow seytaane kàddu seytaane mooy lan ci sa kàddu yow seytaane danañ xam lan mooy kàddu seytaane wa ajlib alayhim bi xayrika wa rajulika noona tamit yow seytaane rëkkal ci gaaya na nga këdd ci ñoom rëkk leen ci say fasu naari góor rëkkal jëm ci ñoom ci seen kaw say fasu naari góor ak tamit ci say euh, sa sa sa sa ñay ñay seen tànk te ñooy war ak ña dox ña doxee seen tànk wa shaarikum da nga bokk ak ñoom fil amwaali ci alal ya wal awlaadi ak gone ya ak gone ak seeni doom ya wa idhum na nga leen di dikk wa maa yaiduhum cheytaanu eh, illa xurura te cheytaani li mu leen dig yëpp ay phrase la ay naxi ay naxi maa ilaf loo tax yàlla yàlla subhaanahu wa taala dafa wax nii wastafziz man istataata minhum bi sawtika xëccal koo mën a xëcc yow cheytaani eh, ci doomu aadama yi bi sawtika ci sa kàddu kàddu seytaane mooy lan ndax ñun danañ dégg kàddu seytaane loo tax mag ñee ko firi ku mel ni mujaahid nee na kàddu seytaane al ghina wal mooy musique ak waxu caaxaan kooku mooy kàddu seytaane loolu tax alxasanu basri nii kàddu seytaane mooy lépp lu ñuy tëgg rek nee loolu mooy kàddu seytaane lépp lu ñuy tëgg rek mooy kàddu seytaane day woo nit ñi ñu ñëw te duñ mën a lànk bañ loolu tax boo demee ci jalaalee ni sax mi la gën a jege wastabziz man istataata minhum bi sawtika sawtik mi ngi ko firee bi duaaika bil bil ginaay wal mazamiri wa kulli daain ila almaasiya mooy ci woote gi ngay woo nit ñi ci sa mooy woo gi ngay woo nit ñi ci musique maanaam ci way yi ñuy neexal mu ànd ak ay instrument ak lépp loo xam ne day woo ki ci mooy yàlla kon bi sawtika mooy musique comme ni ko borom xam-xam yi firee boo demee ci ibnu kathir noonu boo demee tamit euh, ci yeneen téere tafsir yi tamit noonu daanaka lañ koy firee kon yàlla ni wooteel yow seepaane ci sa musique gaa ñi nga képp koo mën a woo ci doomu demee yi kon ci lay wootee buy woote nag wa ajlib alayhim bi xayrika wa rajlika na nga rëkk ci ñoom bu ko defee bu ñu déggee musique bi jolli rek rëkk rek ñu commencé am ñoo xam ne bu ñuy ñëw dañuy war seeni oto wala war seeni avion wala julika am ñoo xam ne dañuy dox seeni tànk gaawantu ñëw ñëw ñaareel ba tamit wa shaarikhum fil amwaali nga bokk ak ñoom alal ji seytaane am ci cër fi muy génnee ak fi dugg seytaane am na ci cër ci concert yi ci pëjëm yi noonu tamit ci yenn cérémonie yenn galaa yi seytaan yi def ci woppam alal jooju dafay am cër wal awlaad ak ci gon ak ci doom ya ndax njaaloo ya cay xew njaaloo ya cay xew ak amin yu bon yu yoonul yi nga xam ne du yoon yi ñu amee doom te yëpp seytaane ci boppam da cay am cër loo tax day bokk ak gaa yi ah, alal yi ak seeni doom nañ koy fañ koy amee ak fañ koy jëmale wa idhum loolu tamit di leen dik dig ay projet di leen dig ay avenir yoo xam ni yu souriant noonu tamit di leen dig ay ay ay ay ay développement di leen dig noonu tamit ay avancement di leen dig jàpp leen ñu gëmloo ni ñoom ay star lañu ñoo féete kaw nit ñi di leen dig war ni ñoom ay ñu am talent lañu di leen dig bu ko defee nag jig yooyu moo xam ay écran yu leen teg ay micro yu leen jox la noonu tamit mbooloo mi wër leen taxaw di leen déglu noonu tamit tàcc yi noonu tamit nii leen félicité nii leen fonkee yooyu yëpp ay diggu seytaane la wa maa yaiduhum seytaanu illa gurura yàlla nee na seytaane nag lim leen dig yëpp du dara lu dul ay phrase rek ay ndaxte maay ay wax ju tàbbi yu tàbbi géej ay wax yi yoo xam day ànd a ngelaw li rek li mu leen dig ay ay la moom seytaane du mujj fenn du mujj fenn ay ngelaw la rek buñ dem kon loolu yëpp alxuraan feeñal na ci ni nekk ci yow musique ci boppam alxuraan araamal na ko noonu tamit alxuraan ŋàññi na ko ŋàññi na ña koy def ak ña koy déglu buñ ñëwee nag ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi ci lay gën a feeñee dafay mel ni jant ci digg bëccëg ni musique ci boppam ni mu xaraamee xadis ba ci njëkk mooy xadisu abu malik al ashari radiallahu anhu nee na dégg naa yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ni la yakunanna min ummati aqwaamun yastaxilluuna alxira walxariira walxamra walmacaazif wala yanzilanna aqwaamun ila jambi calamin yaruuxu calayhim bisaarixatin lahum yatiihim yani alfaqiira bixaajatin fa yaquluuna irjic ilayna gadan fa yubayituhum allahu wa yadaau alalam wa yamsaxu axarina qiradatan wa xanazira ila yowm alqiyama xadis boobu Buxaari ko génne mais taaliqan la ko génne moom Buxaari ñu bëri ci borom xam-xam yi génn nañ ko jokk ko loolu tax xadis bi Buxaari wéral na ko ibnu Xibbaan ibnu Salaah ibnu Qayim ibnu Kathir ibnu Taymiya ibnu Xajar alsaxaawi ibnu alwazir alsanaani ismaili Cheikh Albani ñëpp wéral nañ xadis bi xadis la bu wér lan la ci yonent bi wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf cee wax wax ju rëy ju jullit bu nekk war a bàyyi xel mu dëppoog jamono tey jile dafay mel ni yonent bi dafa jàkkaarloog jamono tey di wax ak moom yonent bi ni sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam la yakunanna min ummati aqwamun dana sama dana ami la yakunanna dana ami ci mustaqbal ci sama xeet ay nit ñoo xam ni yastaxilluuna xira dañuy jéem daganal njaaloo wal ak suwa wal ak sàngara wal maazifa ak instrument musical yi dañ koy jéem a daganal si nga yonent bi wax na ni am na ñuy ñëwi ci xeetam aw nit ñoo xam ni ci aaxiru zamaan lañuy ñuy dikk bu ñu dikkee danañ jéem a daganalal nit ñi njaaloo yombaleen ko feeñal ko fësal ko ba mel ni lu dagan noonu tamit danañ jéem a daganal yére yi ñuy da yi ñu araamal ci góor ñi muy suwaa yi ñu araamal ci góor ñi danañ ko jéem a daganal góor ñi wal xamra dañuy jéem a daganal sàngara wal maasifa danañ jéem a daganal daganal tamit instrument musical yi danañ ko jéem a daganal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jige foofu nii wala yanzilan aqwamun ila jambi alamin aaxiri zamaan di nga gis aw nit ñoo xam ni danañu wàcc ba dem ci benn wetu montagne benn wetu montagne foofu lañuy nekk di fa naan yóbbu fa seeni lekk ak seeni ndox yu neex ya noona tamit yóbbu fa seeni sàngara yóbbu fa seen instrument musical yi di musique noona tamit lépp jigéen ña njaaloo ga col yu araam ya yëpp daje fa yëpp daje fa nee na bu ko defee nag yaruxu alayhim bi saalihatin lahum nee na dana am ay nit ñoo xam ni daanaka ay kaw kaw lañu wala ay nitu àll lañu wala nit ñu ñàkk lañu sax ñoo xam ni dañuy ñëw yore seeni gàtt euh, ñëw ci ñoom ngir sàkku ndimbal kon dafay fekk jamono jooju niiw doole yi day gën a bëri bu ko defee ñoom dañuy am soxla lool ci ñooña nga xam ni ñoo yore pouvoir yooyu muy pouvoiru alal ja yore tamit pouvoiru euh, euh, mën a tasaare jaaloo mën a tasaare colin yu bon yi mën a tasaare sàngara mën a tasaare tamit instrument musical yi nga xam ni ñoo amee alal bi daanaka lii mooy seen force bu ko defee néew doole yi day leen soxla ci seeni aajo yi ñuy dundee sax xam ni du ñu yor dara soxla dund gi soxla lu ñu lekk soxla lu ñu naan mais ñu ngi jël xaalis bi di ko def ci yële ci caaxaan yële bi néew doole ñëwee ci ñoom yonent mooy wax de sallallahu alayhi wa sallam nee na fa yaquluuna ñuy néew doole yi irji ilayna gadan waaye dem leen ba ëllëg maanaam di leen jox ay ay jig di leen jig rek di leen jox ay ay ay ay rendez-vous waaw di leen jox ay rendez-vous di leen jox ay rendez-vous dem leen ba nàngam dem leen ba nàngam di leen renvoyer rek di leen renvoyer rek nee noonu la ñuy jékki rek fa yubayyituhum allahu yàlla bett leen ci guddi gi allahu akbar yàlla bett leen ci guddi gi ak mbugalam nan lay def moom borom bi wa yadaawul alam montagne wa lay jël daane ko seen kaw wa iyaadu billah montagne ba daanu seen kaw wa yamsaxu axarina qirada yàlla soppi ñeneen ña ca des ña rëcc ña yàlla soppi ay golo wa xanaasiira ak i mbaam xuux ila yawmil qiyaam ba ñu def si ba yawmal qiyaam allahu akbar kon yonent dafa mel ni dafa jàkkaarloog jamono dafa jàkkaarloog jamono kon ci bi xam la ne ni ay nit a ngi ñoo xam ni danañ ñëw ci xeetam bokk ci xeetam ay jullit yoo xam dañuy jéem a daganal njaalo ak col yu bon yi yi lislaam xaraamal ak tàngara ak instrument musical yi danañ ko jéem a daganal ci façon yu bari wut ay borom xam-xam jox leen alal koromp leen ñuy wane ni yii daal mënul ñàkk ci jamono wala sax dara nekku ci loolu ci xeet yi la wala ñuy indi ay texte yoo xam ni wala ay subhaat lënt lënt yuy wane ni dara nekku ci dara nekku ci bu ko defee dinañ ko jéem a daganal nit ñi wala yombalal ko nit ñi tasaare ko ba mu mel ni dara aayatul dara nekku ci ba mu mel ni aayatul dara nekku ci danañ ko jéem kon loolu yonent bi wa wax na kon lii liñ ci mën a jàngee rek mooy ni lii wane nii yi musique ci boppam dafa xaraam li koy wane benn mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam baat bu mu wax yastaxilluuna yastaxilluuna dañuy jéem a daganal yii kon loolu dafay wane ni lu xaraamoon la ñu koy jéem a daganal kon musique dafa xaraam instrument musical yi yëpp dafa xaraam yonent ne dañu ko jéem a daganal ñaareel ba tamit mooy yonent bi dafa boole instrument musical yi ak yi xaraam yi nga xam ni daanaka ku am as ci xam-xam lislaam doo sikk sàkk ci xaraamam muy jaaloo muy suwaa ci góor muy sàngara yëpp dafa xaraam yonent bi boole ko ak instrument musical yi kon loolu dafay wane ni moom dafa xaraam lii tamit dafay wane ni musique ak tàngara ak col gu ak njaaloo yii ay xarit lañu ay seex lañu bal sax ñoo bokk nàmp bal sax fu ñuy nekk rek ñooy daje fu ñuy nekk rek ñooy daje loolu dana feeñ ci xadis yu bëri yuñ nar a wax nga xam ni yonent bi xam le ni ni ñaari njaaloo ak sàngara ak col ak musique ñooy ànd duñ tàqale ko loolu tax yonent bi waxaat ci beneen xadis boo xam ni euh, xadisu abu malik la ba léegi nga xam ni daf ko gàttal moom abu malik mu ni firi wax ca tudd ca leneen loo mu tuddul tale mu ni la yashrabanna naasun min ummati alxamra yusammuunaha bi gayri ismiha yuzafu ala ruusihim bilmaazifi walmuganniyaati yaxsifu llahu bihim al arda wa yajal wa yajcalu minhum alqiradata walxanaazira xadis boobu Buxaari génn na ko ci taarixam Cheikh eh, Ibn Maaja génne ko ci sunanam Cheikh Albani wéral ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ca nii dana am sama xeet ñoo xam ni aw nit soo xam ni ñuy dem jël sàngara jëf di ko naan ñi ko tuddee nag lu dul turam nee na nag bi ñuy naan sàngara noonu am na ay euh, musiciens yoo xam ni ak musiciens yi jigéen yi nga yore seen instrument ciib leen kon ci pëjam lañu nekk ciib leen ñoom ñu nekk ci suuf comme ni ñu amee ci galaa yeeg yeneen yi rek di musique nag bu ko defee gars yi di naan seeni sàngara nee na noonu la ñuy dékk rek yaxsifu llahu bihim al arda yàlla wax suuf si xaral ŋàyyeeku suuf si ŋàyyeeku mëdd leen wann leen wa yaj'alu minhum alqiradata wal xanaazira ñëra ci yàlla soppi leen ay golo ak i mbaam xuux wax la joo xam ni wax ju wér la ju yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ñetteelu bi nga xam ni xaj na ci la ñuy jeexalee imran ibn xusayn radiallahu anhu moo ko nekk li nee na yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee wii de fi hadihi al umma xasfun wa masxun wa qadfun nee na sama xeet tremblement de terre dana am boo xam ni dafay mëdd nit ñi wann nit ñi suuf si day xar wan nit ñi wann dëkkukaay yi wa masxun dana ci am ñoo xam ni day leen soppi ay golo ak yi mbaam foofu wa qadfun am na ci ñoo xam ni dañuy tawal ay xeer ci seen kaw mooy immobile daan seen kaw wala montagne yi fa qaala rajulun min al muslimin kenn ci saxaaba yi ni ko yaa rasulallah wa mata daaka yow ki yàlla yónni kañ la lool di doon kañ la lool di am yonent bi ni ko ida daharat al qaynaatu wal maazif wa shuribat al xumuur ni ko loolu mi ngi am jamono joo xam ne waykat yi jigéen yi danañ dem ba feeñ ba tasaaroo ci jamono wal maazif ak instrument musical yi buñ demee ba pëch wa shuribat al xumuur buñ demee tamit ban naan sangara naan goo xam ne naan ku fës la foo tourné muy baar nee boobaa nag ca la loolu di xew xadis boobu euh, Tirmisi moo ko solo ak tamit Ibn Abi Dunya Cheikh Albani wéral na ko mu doon xadis bu wér kon lii yëpp dañ ci gis ni yonent bi wane na ni bokk na ci mbugal yi gën a metti yi dal ci xeetam yi ñëw aaxir zamaan te li koy waral bokk na ca mooy musique bu tasaaroo ak sàngara bu tasaaro ak njaaloo bu tasaaroo kon loolu junne bu nekk war na cee bàyyi xel waxu yonent fi ba léegi jeexagul defe nañ ay xadis incha allahu mu mel ni euh, waxtu bi dañoo dab incha allahu émission yi ñëw danañ ko yeggali ak waxu borom xam-xam yi ak lañ ci wax yëpp incha allahu danañ ko danañ ko euh, yeggale ci émission yi di ñëw kon waxtu bi dab nañu ngi ñaan yàlla may ñu dégg ak topp ñaan yàlla mu wan ñu dëgg ba ñu xam ne lii may dëgg mu wërsëgal ñu ñu mën koo topp wan ñu caaxaan ba ñu xam ne lii caaxaan la wërsëgal ñu mun koo moytu yàlla na ko yàlla defal ak mbooleem jullit yàlla defal ñu suture àdduna ak suture àllaaxira jàmmi àdduna ak jàmmi àllaaxira ki nekkoon ci waxukaay bi seen bokk si Diakhé Kunta ki nekkoon ci technique bi Cheikh Diagne la ñu koy gërëm ak a sant ada wa sallallahu wa sallama ala rasulihi wa ala alihi wa ashabi atbaihi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh